pour mooy état imposé gum euh, sénégalais bi ko dégg wala tubaab bi ñëw Sénégal danaan mais ñi fi nekkoon euh, nga baal ma mais c'était du n'importe quoi administration nit ñi daaw ñu liggéey heure euh, l'administration n'était pas performante dañ ko politiser woon loolu lañ leen di tuumaal ñu ngi nekk di ko dindi jamono ji pour que Sénégal gën a mën a gis boppam ci liggéeykat yi xam nga ñun ay sénégalais lañ l'administration sénégalaise quand même bi ko Senghor tabake ak léegi ñeneen ñëw di ci continuer man dama leen respecté jox leen cër te it xam naa ne administrativement l'administration sénégalaise du boo xam ne bu cuune la ndax bari na réew yoo xam ne ci ñun la ñuy tibbee ci ñun la ñuy rootee teyit loolu li ko waral mooy am ay ay ay ay ay vraiment des hommes yoo xam ne am nañ capacité doxal liñ leen dénk mm-hmm. li ci des nag ku nekk mun nga wax ne damay jooyanti damay jubbanti damay def lii parce que nag euh, dañ naan euh, euh, kuy kuy fóot bu jaaxlee day tuuf li ci loxoom mais nag lu tooy moom mënut a weesu ndox. Mhm. kon am na lu ñuy xaar lu dul ay euh, administration daawuñu xëy heure ak ay nangam nangam yooyu. ay yooyu non bu dee tàppale nag. terme bi ñuy mooy toog muy dox maanaam seen. nit ñi xam nga loolu nag moom li ma ne ma ne toog muy dox ñoom moo boo xam ne xam nga ñiñ ko adressé woon du administration ñoom ñoo ko doon wax bi ñu nekkee ci nguur gi mais toog boobu muy dox. ñoom ñu ngi leen di seeti ñu ngi leen di ziare ji ñoom fu ñu ko waxee woon nekkul woon administration ñun ay sénégalais lañ. vidéo yaa ngi fii li ñu doon wax mu ngi fii toog muy doog dafa am ñoo xam ne yàlla def leen liggéeyal seeni maam liggéeyal leen seeni waajur liggéeyal leen ñu ngi liggéey ñu ngi béy ñu ngi sàmm ñu ngi sàmmlu ñu ngi béylu ñu dañuy tëdd ba àddina seeni set dañuy tëdd seeni setaat dañuy tëdd les chefs religieux donc ñu toog ak ñu tëdd day dox parce que euh, ñi ngi ñi ngi béylu ñu ngi sàmmalu ñu ngi def lépp loo xam ne citoyen def ko war a def mhm. ñoom ñu ngi koy def boo xoolee li ñuy dundal ci ay taalibe xam nga ne du toog muy dox mooy dundal taalibe yooyu mhm. boo xoolee li ñuy jëfandikoo ci seen kër yi du toog muy dox moo moo moo tax ñuy dundal ñooñu kon ñooñu sant ak ngërëm moo ñu war ci ñoom te ja pense que ñoom ils ont compris moo tax ñi ngi leen di nemmeeku di waxtaan ak ñoom parce que sans ñoom kenn mënul doxal